Euh, safe mu ay bëñam di yang sama mbokki catalan yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar merengue di ziar képp koo xam ne yaa ngi topp seen bii di Aladji Malick TV information yu wér te fii la gars yi nag mënuma avancé te kontaanuma ci yéen wax dëgg yàlla seer abonné yi ak ñi nga xam ne doonuñu abonné yi démb suñu anniversaire la woon waaye message soqi ko na focc na ci àdduna bi message whatsapp yi dama dem ba mënatuma koo liir xol bu sedd guy yi ba mel ni wanagu mbott laa àndal di ànd ak yéen ci information yi tey gars yi yéen a baax yéen a gore yéen a am diine yéen xam lu rafet di ko wax yéen a xam lu rafet di ko def yàlla yàlla dolli leen sutura defal leen tawféex yéen a xam abonné yi lu ngeen bëgg yàlla na ko yàlla sunu borom def ci barkeb Seydina Muhammad kontaan naa ci yéen am leen jàmm ñu digle publicité bi nga xam ne Serigne Moussa tey ba tey gars yi match bi tas na euh, ci feetu décembre bi gars yi xanaa da ngeen naan alaaji Malick luy tas match bi man leen tey ba tey ba yi ànd ak Moussa ak i rakam nga xam ni daanaka Ousseynou ak Assane euh, dabbar ñi bu yu mag yi euh, fii ci région de Thiès li ko wër ñoo koy coppati ndànk di tasaare bagage yi di jaay gars yi bagage yi yomb gars yi ni ma alaaji Malick waxal ñu Moussa ak Ousseynou ak Assane kontaan nañ ci ñoom ndax gis nañ prix yi gis nañ suñ tabax yi biñ koy commencé bu njëkk ak léegi tabax yi fi mu toll nii lépp ma ngay jël jëli di jëm ci kaw ndax li tax ñu mooy bagage yomb yi nga xam ni daal na leen koy jaay waaye loolee nag Assane ak Ousseynou ni ma alaaji Malick bagage yi nag loolee ñuy wax ci yomb de gën nañ koo wàññiwaat ba fi mu toll nii ci fête bi ñu ngi ci bagage yoo xam ne yu yomb mucc ayib lépp loo jëm ci li nga xam ne mooy toilette maanaam lu jëm ci ay saas ak sangukaay yi nga xam ne bakkane na ndax man yooyee nanduma ko maa ngi mel ni ku ne France bi ma fa demee loolee tamit nekk mbégte ci képp koo xam ne daanaka bëgg nga lii di quincaillerie générale ciment suuf béton fer lépp lu jëm ci xeet boobee am nañ ko am suuf su rafet am li nga xam ni mooy lampe yoo xam ne yu mucc ayib la ramp yoo xam ni ah, day xëy xëy ah, baneen bi mooy karo yi nga xam ni moo mujj génn ci dëkk bi karo yi nga xam ni ah, sii nag Washington DC karo yooyee fi la ko bato yi ëndee wàcc ko fii lépp taw fii sunu espace plombier yi fàttewuma ko benn yoon maanaam tiwo yoo xam ni yu dëgër këcc la maanaam ci gàttal kenkaari général lépp lu jëm ci kenkaari tabax ba jot say caabi amul lenn leneen loo xam ni bëgg nga ko te foofu amul ci kër gi numéro téléphone yaa ngoogu gaa yaa ngi leen xaar dabbar ñi nag ci Ngoos Ngaary TV gis ngeen ko daanaka vidéo ne moom lay def information ñu bari gis nañ ko mu def revue de presse bi foofee wala boog mu def li nga xam ne mooy sunu anniversaire poopee mbégte lay doon ci ñun catalan yi lañ koy dewle ak entraînement bi nga xam ni euh, Barcelone def nañ ko euh, démb tamit daanaka euh, Mundo Deportivo La Coruña andi ko tuuti Barcelone mi nga xam ne daanaka bari na lu muy waajal ci équipe boobee nga xam ni mooy équipe bu catalan yi ñu ñaanal leen jàmm mépét bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu saison bi mépét boobee ñu am ca raw seen njortu ndax catalan yi wax dëgg yàlla am nañ équipe waaye ab entraîneur leen amul entraîneur boobee nag ay bëñëng ma ngi yeng ah, ci li nga xam ne mooy Espagne gi yëpp foo tourné li ñuy wax mooy Xavi ah, bala ñu koo toroxal na teel a lijjanti boppam maanaam na génn ci buntum ndaw bi jógee ca Barcelone bu ko defee gars yi wut boo xam ne ah, bu ama am solo la tey togg kii di Pep Guardiola du yomb waaye nag waxtaan ak moom indiwaat ko foofee ca Barcelone bu boobaa Barcelone dana doon équipe boo xam ne dana am entraîneur bu méngoo moom méngoo euh, na ak li xam ne daanaka mooy tane bi Iliman Ndiaye waaye ba leen cee dikki dañuy dikk ci ki nga xam ne mooy ku Kouyaté ànd ak moom ci naqar bi nga xam ne toute l'équipe de la Djimali TV ñu ngi ciy ànd ak moom papaam ji génn moom moom mais nga xam ne mooy Cheikhou Kouyaté sax fi may waxee yow mi ngi ci Ndakaaru ngir lan ci funérailles bi nga xam ne tey ji la war a am mu fekke ko nag gunge papaam dernier euh, néegam wala fa nga xam ne foofu lay mujjee dëkk te xam ni képp kuy ab jullit ak kudulub julliti ci yam bakkan bu ñam dund dana ñam dee loolee tamit daanaka mu nekk lu ama am solo métti na waaye seexu gaynde jógal bu baax a baax te xam ni léppay baax sa papa joojee ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana gars yi defal leen ko fukki lixlaas ak benn stade di yëglekaay moom it ñëw na ci li nga xam ne mooy Cameroun gi war a dajeeg Sadio maane ñoom ak équipe am Sénégal gaynde Sénégal yi pare nan Sadio maane te de liste Lamine Camara daanaka kenn du ko juqati ci militaire bi bu ànd ak dugal borom bi mooy toog jiital li nga xam ne mooy défense bi ñaa ngi ci ca kanam ilimaan attaquant yi ñu bari ñu ngi koy laaj ak Nicolas Jackson Jackson classement bu nar a mucc ay boo xam ne ñu ngi koy xaar ci équipe nationale Sénégal bi nga xam ne gars yi jàpp nañ ni équipe boobee mucc na ay tey bu jàppee Cameroun ragal naa ne mu toroxal ko toroxal yoo xam ni gone yi yi duñu ko musa fàtte ba ilaa yow mi diine stade yëglekaay yi ñëw ci loolee waaye beneen yëglekaay boo xam ni record yëglekaay bu Youssouma jigéen duur daal di jàpp ki nga xam ni mooy Cameroun ak Sénégal ak tàggatu gi nga xam ne gone yi def nañ ko démb ak Cheikhou Kouyaté mi nga xam ne mi ngi ci ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu Sénégal ànd nañ ci moom bi papaam joo xam ni génn na àdduna it loolee moo neex yàlla suñu borom yàlla suñu borom li mu dogal daanaka dafa war a neexub jaamam neex na ko kon loolee daanaka fi mu toll ni ñu ànd ceeg moom ah, ñi nga xam ne ñoo war a titulaire ak ñi war a repos ak remplaçant yi loolee lépp tamit record bi terñi na ko ah, bu baax a baax Vincent Aboubacar mi nga xam ne tamit boobu absence match boobee du ca bokk moom it mi ngi taxaw ni jonn ak ah, ki nga xam ni mooy équipe bu Cameroun l'observateur tey moom daa ñëw lu yaatu yaatu ci li nga xam ni Euh, moo nekk Lamine Camara mi nga xam ne dem na fële nga xam ne mooy fa mu cosaanoo euh, defe fe ak ngoneem lépp nag indi na ko ci xët wu yaatoo yaatu yëglekaay bi faram fàcce na ko bu baax a baax waaye Krépin Diatta ak ñi mu àndal seen match sa Cameroun yëglekaay bi indi na ko bu baax a baax ambiance bi nga xam ne groupe bi nga koy dund fële ca Côte d'Ivoire mu nekk ambiance moo xam ne ay gaynde dëgg ñoo fa nekk di doxal lu ama am solo gars yi ma gërëm leen sant leen sàkku ci yow mii nga xam ne yaay door ñëw ci seen bi nga abonné yow mi ko def ba pare cant ak ngërëm ñeel na la jërë jëf